gox yoo xam ne si euh, yàggul dara dañu jàppoon ne dañ leen fàtte parce que mosuñu gis li nga xam ne moom la euh, réew mi di séddale muy delluwaat ci biir population yi muy alalu réew mi ñoom gisuñ seen won seen bopp mais bi puis maa ñëwee si la ñuy xool si li nga xam ne moom la état bi di taxawoo ak njabootam muy wàllu faju muy wàllum njàng muy wàllu bëgg naan naan ak aussi euh, euh, courant ci la Puma taxaw pour jàppale leen ci gën leen ci taxaw loolu nag population yi dañ koy rafetlu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñoom chaque jour ak aussi di di di dem di visiter di dox dugg ci gox goxaat yi xam nañ ban soppeeku la Puma indi.